ñoom ndaw ñi gannaaw bi nga xamee ni ah, boom nañu kenn ci ah, seen ay ñoñ ah, mu am lu toll ci fukki at ak ñaar ana kan moo ko boom kenn xamu ko waaye ñoom jàpp nañu ne xëy na ci tàkk der yi la jógee eh, loolu seen xalaat la ñu bàyyee leen ko waaye nag li wérte daal jàpp nañu ne eh, xeex bi nga xam ne moom moo fi am ci jamono ji loolu moom moo ko waral waaye nag mu mel ni daanaka ñun sax dañoo yegg si ci jamono joo xamee ne jàmm ngi tàmbalee am ñu gis ne ñi nga xam ne ñoom ñooy waa gendarmerie notamment les ci ñu ngi tàmbalee def fi nga xam ne moom mooy seen repli eh, di dem ah, ah mu mel ni ah, ñi nga xam ne ñoom ñooy waa police daanaka ñoom ñoo wéy ah, di des a di taxaw a teg seen ay bouclier yu dëgër fas yéene daal di jàmmarloo ak képp koo xam ne daal di nga fi amal ay yëngu yëngal fi nga xam ne moom mooy ci parcelle Parcelles Assainies xam na ñoom Jules xariba xëy na ñoom zone bi ñu nekk fa la tension yi xaw a gën a bëre ci jamono ji waaye li wérte daal mooy ñun fii ñu nekk nii li ñu fiy gis eh,

technologie li ñu mëna japp dal moy euh, ci kanam euh, tuuti euh, dam Ndiaye bu ñu bàyyee Zul Khariba mu duggu xeyna mom mu daldi di décrire la nga xam ne moy décor wala climat ba nga xam ne moy mooy ci jamono ji fofu nga xam ne mo nek ci commissariat abu parcelle Assainies té mom mu nek fa and ci ak ke nga xam ne moo di Pape Sarr ñu jamm lay ñaan parce que tey jii doo xoolee suñu yaay nelawatuñu suñu papa yi lekatuñu nanatuñu te lii nii politique jaru ko mu ne ko politique jarul lii waaye maa ngi ñaan yàlla yàlla ñu yàlla may jàmm salaam lii tel fi dañ parce que lii ñun Sénégal xamuñu lii ñun jàmm lañ xam salaam xama kaf foore mais li gën a boo am ci ñu dëkk yi mu ngi commencé commencé yàq te doo xoole léegi ci ginnaaw fële ne am na boo yi nga xamante ne wala ay paaka lañ yor ay jàmm day agressé si biir poul bi te loolu c'est pas normal

buñ fa toll ñun ñëpp dinañ ko regret ñi ni ñuy defee seen liggéey nañu communiquer lu waay mën a wax pour réew mi dellusiwaat si jàmm nañ ko def ditunda. Ini kan soalnya جعل لي Budam, budam, budam, budam, budam, budam, budam, budam, budam. Come on. Regular one. Come on, oh, oh. da leen doon pour wootal leen suñu ñëw ñu song waaye nag euh, ñu ko doon waxee sànq rek lii nga xam ne moo di manifestation bi nga xam ne moom la ñu nemeeku woon fii ci Parcelles Assainies mën nañ jàpp ne daal dinay jeex ni ngeen koy gisee noonu ci suñu ginnaaw ay xeer moom mooy li fi des waaye tamit ak li nga xam ne moo di euh, bërigo yeeg pneu yi nga xam ne ñoom ndaw yi euh, tegoon nañu ko fi waaye nag ñi nga xam ne ñoo di manifestant yi ñii di waa brigade d'intervention polyvalente bu euh, police nationale daal ñu leen dégager ba ñu jógee fi nga xam ne fii la ñu nekkoon mu mel ni kon ci jamono ji jàpp nañu ne rek jàmm daal dinay dellu si nga fi nga xam ne moo di ci Parcelles Assainies li doon nag ñu jàpp ne moo di ay ndaw yoo xam ne dañu meroon ba futtu gannaaw ba nga xamee ne seenu ñooñ ay atam toll ci fukk ak ñaar la ñu daal di uh, faat uh, moo waraloon rek ñoom ñuy uh, jàmmarloo mu doonoon dëgg-dëgg intifada ginnaaw bi nga xamee ne nag ñu ngi jóge ci biir Ndakaaru cité kër góor gi waaye tamit ca tribunal daal di fekk si fii beneen équipe bi nga xam ne ñoo fi nekkoon te mu composé ki nga xam ne moo di Jules Khariba suñu naataango dekk tamit le rédaction en chef de Africa 7 TV waaye nekkoon fi tamit ki nga xam ne moo di Pape Sarr ñu andon ak euh, Papa Sala Diop euh, ñëw fekk len fi euh, jul Khariba ci suba bu leg nga nekk fi ci teunk ana lan nga gis ne mom mo fi am ganna bi nga xamé ne ki di xaalif nu mutu tudd Ousmane Sonko libéré nañu ko sous contrôle judiciaire ba nopi li nga némé ko fi tay lan la. jërëjëf Khalil ma sante la bu baax gërem la di gërem ñi nga xamné ne ñoo di caméraman ñi andalon tay xam nga tay Ousmane Sonko daanaka xewul xew bi six jours yi nga xamné ci si genn yépp moko waralon mais tay dafa am leneen lu laxasu si yëf

ñoom ñëpp ay nit lañ yoo xam ne même suñu leen joxee pouvoir bi suba dañuy dem mais réew mi ñun ñoo ko moom euh, président Macky lu ñu koy fàttali rek moo di kaddu yi xam ne euh, Abdoulaye Wade yëkkati na ko di ko wan ne am na ay nit yoo xam ne dañ lay wër di la wax loo xam ne nga dugg ba dugg si guuta euh, si daw di am ñoom ñooy njëkk daw donc ñooñu suñ la waxee déggal rek waaye bu mu tax nga jëf mm-hmm. ndaxte mën ngaa jëf loo xam ne suba daanaka yow dina am ay jafe-jafe yoo xam ne dina la si fekk te am na ay ñooñam yoo xam ne seen i kër yàq nañ ko ñii seen i oto yàq nañ ko ñii seen leneen ak leneen leneen donc nañu fexé ba démocratie dellu siwaat si réew mi nañu fexé ba liberté d'expression nañ ko di jox mais ñu xol anam bi nga xamné ne lañ koy défé lool moy li nga xam mo am solo aujourd'hui nous ni xamné xam euh, Sénégal on parle de pays de la teranga à chaque fois dañ koy wax dëkk la bo xamné tranquillité amna fi stabilité amna ko fi amna na ñoo xam ce sont des pays limitrophes yi nekk ci euh, dëkk bi ñu ngi envier li nga xamné Sénégal amna ko Ousmane Sonko tay ñibi na kërëm nañ kon nañ japp né amna benn pas bo xamné amna am na pour paix dellu siwaat mais nak du tax ki nga xam xamne mom mo wara delo ci wat yefi mhm. di président Macky Sall mhm. na def na def euh, déclaration gëna apaiser wat nit ñi kilifa diiné aussi di continuer di prêcher pour su ko défé rek jamm del ci wat mais chapeau à toi chapeau à caméraman yi nga xamne ñom lañu andalon di remercier aussi mais mais bala bala nga bala nga euh, rek mu melni euh, affaire bi tax na ñu néméku ay jafé jafé ci walu liberté d'expression notamment à la presse ñu gis ay ñenn ci ay natango yo xamne xoxatal nañu len sank interpeller nañu ci Bougane Gueye Dani mu am lo xamne wax nako ci euh yow ban jangan nga am ci lool en tant que ko xamné kilifa nga ci walu média waye tamit euh, nek journaliste de surcroît. Euh, xam nga tay so xol presse bi sax ñi nga xamné ñoo di manifestant yi dañoo japp né sax presse bi seeni adversaire lañu alors ko déméwul non tay ñun ñi nga xamné ne dañoo nek fi di relayer information pour jox ko jox ko askan wi tay amna ay kilifa yo xamné à travers euh, suñuy suñuy média ci lañuy xam lan mo xew ci réew mi donc ñepp ñoo xamné ñuy ñu xoxotal presse nañu nañ ko bayyi te xamné peut-être presse bi amul ku far fi ak ku far fale je te parle de par exemple exemple groupe Futur Média Euh, ki nga xam ne moo di borom peut-être mu ngi ci nguur gi mais yàlla xam na ne midi su jotee ci lay xam lan moo xew ci journal midi bi donc amul benn wax joo xam yalla mën mun mun wax pour influencer ñi nga xam ñoy liggéey fofu donc loolu foog ñu def ko suñu xel yi amul mën nga nek patron de presse mais liberté de la presse ko personne bi nga xam moy mooy exercer rôle bi da ko am yow mi Khalil Alioune Ndiaye mënu laa wax ne démé ci terrain bi dala waxé ni su la ko waxé nga ne ko déet grand defal nank rek man xamna sama liggéey kon loolu moy loolu moy li nga xam moy rôle presse donc ñi nga xam ñoy ñoo ñuy di manifestant yi nañu jàpp ne presse bi du ñu seeni adversaire nit nak mën na faré fenn wala patron am faree fenn mais ñukay koy liggéeyal am nañ benn professionnalisme boo xam ne kooku mun leen xool xolloo si benn direction ñu xool ko mm-hmm. seen liggéey lañ dañ ko jàng liggéey ko du Youssou Ndour mooy wax loo nit ne defal ni nga def ko mm-hmm. du Alioune Ndiaye moo lay wax defal ni nga def ko pour ñi nga xam ne ñoo ñuy ñu xam loolu euh, journaliste bi du patron moo koy wax lu muy def au contraire su ko patron waxee peut être mu bàyyi ko fa dem wuti leneen waaw di sant rek di gërëm ñëpp mm-hmm. di ñaanaat jàmm ak moo koy bañ réew mi nga xam ne réew ñuy wër yëpp tey bëgg nañ jàmm ju am Sénégal donc :fra nañ ko préserver :fra tey bakkan yi fi mot wat wadd ngi wax 7 ba 8 même su dee benn sax dafa bëri ci réew mi ñu génn àdduna yal na leen suñu borom xaare àjjana président Macky Sall na dégluwaat conseil yi ko Abdoulaye Wade jox ku la jiitu tout ce bu lëndëm moo la mën a wax fan ngay toog moo la wana a wax fan ngay toog mu ngoog moo ngi tamit moo ñu jiitu ci néeg bu lëndëm bi nekk tamit euh, kilifa ci euh, fait nga xam ne moo euh, suñu rédaction ouais, ñu andak ak ci terrain bi mu ñuy wan yoon bi ñuy def li nga xam moi, moom mooy suñu liggéey du coup, def avec un immense plaisir malgré les dangers malgré li nga xam ne moom planer suñu kaw chaque jour ci ay jafé jafé on le fait avec le cœur parce que le droit à l'information, c'est un droit euh, consacré par euh, toutes les constitutions du monde. C'est un droit universel, un droit boo xam ne mënees su ko bañal kenn kon ci et c'est toujours un plaisir de vous servir. c'est toujours comme ça dem ba jeex euh, bu ko jaree bu risque sax ñu risqué suñuy bakkan donte xarawuñu waaye rek ngir wan leen li nga xam xew ci bi informer juste et vrai le journalisme autrement nous allons tout faire pour que nous retrouver cette envie mbokk kon l'olé moom mooy li ñu leen jëlaloon fii nga xamné ne di ci parcelle Assainies waye tamit fe nga xamné mom mo xewon tay ci dëkk bi te lolé dara waralu ko lu mbirum Ousmane Sonko xamna nak di leen jox rek dig dajé comme on le dit bu yoon jeexul waa xusul du massa a buñu joggé fi inshallah ci kanam touti dinañu leen daal di demal fee nga xamné moy place de la nation nek fa fële nga xamné moy ci ca Colobane foofee nag marche pacifique mom lañu fa woté mu jëm ci 3 jours de manifestation yi nga xamné opposition gi di kujé gi daal dinañu koy décréter ñu fas fa né daal di demati bu ko defee ñu dëgtal leen ko ba dara du leen ci raw ci seen chaîne jërë ngeen jëf